خذني يدا خذني يدا شيخ سيدي أبو بكر نانا خذني طالب الشيخ خذني يدا ما يشعر من هنا شيخ جان جعفر خذني يدا خذني يدا شيخ سيدي ابو بكر نانا شيخ دبا خما ترزنين جاء قدني يدا تبغى لنا محمد لمن خلقي بابا ترزنين جاء قدني يدا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaatu wa salaamu ala nabil huda sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi sawil infaq taabina lahum bi insaan ila yawmil firaq bokk yi ñu ngi yëkkati kàddug nuyoo gu jaar ci sunu làmmiñ te jógewul ci nun muy nuyoo Serigne Babacar Sy Mansour Serigne baag leen di nuyu tuuti ci kanam ngeen nangul ma li ma wax ne wax naa dëgg tuuti ci kanam ngeen nangul ma ne wax naa dëgg ne kër Babacar man Mansour mu ngi leen di nuyu. foog ñu xaar ba ah, léegi léegi mandarga yi fés Serigne baa ngi leen di nuyu bu baax Serigne baa ngeen nuyu. njabootu Mame Mbaye Diop bii nga xam ni delloo mbattu wa ca ndaala gannaaw yàlla moo waral tànt bi ak coore bii ci laa jëm de ak njabootu maam Aliou wan mag ñooñu ak ñeneen ñu ñu fi nekkaloon teeru Seydil Hadji Malick fii dalal ko fi seen pas-pas di gën a dëgër ca baay ya ca maam yaag baay ya ba ci sët yi yàlla xiir leen walla mu dogal ñu dëppoog njabootu Seydil Hadji Malick gépp waaye ñu def sëñ Babacar Sy Mansour muy seen xarit nun ñii ci taabal ji Abdoul Aziz ak ñi mu àndal ak man miy wax ak ki waxagul te war a wax sëriñ Babacar Sy Mansour moo nu fi kon loolu dara la nu nuyoom nag su ma ko waxee wax naa nuyoo Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine wax naa nuyoo xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum wax naa nuyoo Haas si Sy Maodo ak lu leen féete suuf ci at yàlla xam kon njaboot gii seeni maam jàppante woon ak seen Alaaji Malick ba sët yi da seeg sëti Maodo yi loolu yal na sax bi aljana ci barke yonent bi sallallahu alayhi maa ngi ànd ak Serigne Habib Sy bu Serigne Babacar Sy Mansour kon wax naa ne sëriñ baa ngi di nuyu kon wax naa dëgg yebal na boppam yebal na boppam alaaj Mansour may wax na ko sànq ina rasula bi xadril mursale a tekki mi xasmali tekki mi jooju lu muy dox Hmm? inna rasula bi xadril mursili doyoon na eh, eh, tàcci mi bi ci Alaaji Maalik laaf noonu lu muy dox li muy dox mooy ka ñuy yónni na mel ni ka ka yónni ki ñuy yónni na mel ni ka ka yónni sëñ Babacar Si Mansoor ma yebal ma teewal ko ci mbooloo mi nga ne xoñeet ñuy la xaar nga solal jiin ak dongari kon nuroo wokki la yebal te da ngeen war a nuuroo comme ndaw lu ne dañ lay jox cëru ko yónni kon ndaw la day nuroo ko yónni ci jëfin ak waxin ak doxin moo war a ee ñu ngi saari ñëpp tuddaat tur yi day xaw a xat xas Mansour mbay limoon na yëpp moo ana Baye maam moor wala bay mboor ban la ci maam moor ci ñëpp walla am ñu mu doon bàyyi ci ñoom foog am na bàyyi moor boo amee maam rek am na bàyyi kon bàyyi moor ak maam moor ak xaas Mansour ak xaas Malick Ndooy sama jarbaat di sama xarit kenn ku ne la nga waroon a wax wax nga ko pour jotol kaddu yi ngërëm ak cant ak ñaan bàyyi mbay da bëgg tant bi ñoom ñëpp. siège yi siège yi. lu fi ne lu fi ne. maire Dakar Khalifa Sall. maire Dakar Khalifa Sall. moo def lépp. moo def lépp. moo ñu jox ñëpp. moo la jox lépp. jox ñu ko defar. jox la ko defar. ak ñu monté. ak ñu monté. lépp moo ko def. lépp moo ko def. yal na ko yàlla may li mu bëgg. yàlla may li mu bëgg. moo xam man nag dama defoon ne kii Baye Mboy daf naan mbooleem ku fi toog utaloon di ci taabal ji. loolu laa man <laughs> bett na ma torop dama defoon def naa daal ku fi toog utal loo jox woykat yeeg firikat bi wax nga sax boobu Abdoul Aziz lu baax maa ngi leen di bégal maa ngi leen di bégal mbég moo xam ne ku ko bége defaru teeg ëllëg waaw jar naa wax Malick ma wax ko ma ne maa ngi leen di bégal ci barke mag ji barke Seydi Hadji Malick mbég moo xam ne ku ko bége defaru teeg ëllëg dama laaj lu mu mbaa xam ngeen ne nun ñëpp ak ñu nun te day jullit kenn ku ne am nga ak nebi rendez-vous guddik tey am ngeen audience tey jii noonu ñëpp yonante bi ne nu recevoir guddik tey xaaral mu sigg ci sëriñ bi Diallo sama jigéen Diallo Diallo kii noo bokk ndey waaw moo noo bokk ndey kii noo bokk ndey ana julaam astafurlah ana ana ana Sidibé sama jarbaat sëriñ bi dama ne maa ngi bëggal mbooloo mi ci barke Seydi Hadji Malick ak waxi Maodo ci laa sukkandiku mooy ku fi toog tey ci noonu am nga ak bi rendez-vous guddik tey dina recevoir dama ne nduruñ booleem ku fi toog ak ku fi toogul te ni nu nu bokk pas-pas am nga ak bi audience guddig tey dina la recevoir jar naa wax wala ma bàyyi tubbaanu bul way de loxo ëh eh, na yow mal xadni si tubbaanu loo na yowmal isnaini tubbaanu loo na fi istigfaar si juróomi <laughs> cey Maodo jërë ngeen jëf Seydi El Hadji Malick ne guddik tey dimanche soir bër set di ñaari yëf am na ci am na ci dimanche soir bu fekk àddinay waajal sang bi pour mu war a ñëw dimanche soir bër seddi lundi am na ci boo xam ne ñu ngi waajal sang bi mu war a jóge ca borom ba tabaraka wa war a gane si àddina war a yokk àddina nag ñu yokk jant bi leer ubbi bunti aljana yi tëj bunti safara yi malaaka yëpp am permission ñu defar at jana euh, yokk taar ba euh, lal tapp ya taal cuuraay ya dimanche soir di teeru sang bu tedd bi mu war a ñëw yéega ne dimanche uh-huh. ba bër seddi lundi ci la ko waajale mu war a dellu rafetlu ahla ñu ubbiwaat aljana malaaka yi teeruwaat ko uru ay nii rang ñu taal cuuraaya lalaat si ngir waxam nga delluwaat rafetlu ahla kon dimanche ci la ñu ne bii recevoir guddi tey ñun ñëpp bàyyi laa ji ne. ana Malick. Serif ah. Serif Touraat. waaw moom xam nga dafa am lu xew fii te xewul fa mu bàyyeekoo mu ñëw xewal ka fi moom. réew mi li fi xew sëriñ bi ah. mooy ku ñuy way sa maam yaay joxe loolu xewu fi moom nag fa mu jógee ku ñuy way sa maam yaay yow la ñuy jox way sa maam jox la loolu bëgg a jëlee moom dafa bëgg a jëlee way jox la indi fi ku ñu way sa maam nga joxe yenente bii dafa am ay garanti ci sharia bi ni ko tarixa bi amee tarixa bi am na garantie yoo xam ne moo yor garanti tarixa bi la seex warlul ne ku ci ne te bàyyi woo ko ba dem bar sàq moo lay teeru teg la ci loxol maama matu la sàggane nag ñett rekk la nag al wasifatu wal awraadu xaylalal juma wasifa ajjuma wirda wasifa yii la si Cheikh na Ahmad wax ne ku ci ne ku ca ne te bàyyiwoo woo ko ba dem bar sàq maa lay teeru teg lañ sama loxol maam rasulullah mu jëbal la borom bi. loo gis sa xam waxuñu nag mel ni man. taalibi boo xam ne danga ne ci tarixa bi nga bokk te da ngay juux ci wirde wi juux ci wasifa wi xadaral jumaa di nga am ay at doo ko fekke te ne taalibe cheikh laa d'accord taalibe cheikh nga waaye cheikh jox la benn garantie ah? Abdoul Aziz dañ jël téere bi sallallahu alayhi wa dafa bëgg xeet wi lool dafa bëgg njabootam gi lool lool lool lu ko yàlla wax sama borom ne ku tooñ sa bopp yàlla kenn du ko tooñ ku ne sa bopp ngay tooñ ku tooñ sa bopp ba tiit xalaat dajeeg man ma fudd sa digg jaaral ci Muhammad wala waa ndox mi Souleymane fa sowum jaaw ka fastaghfirullah wastaghfirhum rasul luy xew la wajadoo laa tawaaban rahiim moo tax istixfaar boo ca paree salaatu arami bi nga ca war a teg wala saatu fàtte ndax sa borom boo ca paree dafa ne yàlla ne boo ma baaloo jaaral ci Muhammad bu la ne bi ma jéggal la kon bu istixfaar boo ci jógee saatul fatiha rek nga ci war a teg xam nga ni bi ah. danse bi mooy fob saatul fatiha sës ki ci jawaratul kamal ñaari rotation la du la jig yow ñaari rotation bu dajee ci nit lakk borom saatul fatiha nga génn ci dóor jawaratul kamal ñaari rotation yi dajale xam nga lay def utal liy dox diggante courant courant ah ana transformateur. transformateur xam nga mooy lan transformateur. mooy laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah mu dégagé leen ñoom ñaar séparé nga dal na ci jawhatul kamal. Ah. yonent bi ne ñaan naa sama borom keroog bi muy départ. keroog ba muy départ onze heures moins la quart un lundi di fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm rabiul awal nekk six cent trente-deux juin wala juillet mu takk bagage yi jibril ba ta asamaan juróom-ñaar naka sa boroom ne tey ngay ñibbi ci condition yi bu la neexee su la neexee ma bàyyi la fi mii la soo dee aljana nga jëm su la neexee dem tey fanaani aljana mu ne na doon tey na doon tey defaru mu dese nag ay yëf yu mu war a laaj waxante ko ak jibril malaakal moo tee ngi taxaw yonente bi nekk ana jibril sama xarit bi mu ne ko man ko bàyyi ci asamaani juróom-ñaar addi alaaji bu saaxu sekk kii de yàgg naa ko xam lool kii du gune de man ba ma dee gune de ñu naan yónni ci moom kii maanaam li de moo sekk mii moo daan sekk mii du ko ndaw de alaaji mu saaxo dafa ma daan yónni ci moom booba sotoraak day door a am mu nekk fa su ma demee yoof di ko xaar ba mu wàcc fekk ma fa door ma toppatoo lañ ma yónni woon ma delluwaat tëngeej ku baax la yal na ko yàlla baax lu ma doon wax xanaa dugg de passé woon naa loolu dama ne yonente bi ne jibrailu mala balakal mawti ana sama sopp bi sama xarit jibril mu ne man ka bàyyi ci asamaan juróom-ñaar malaa kéem peegee jaale sa roogu tedd gi nar a yéeg tey ndax mën nga muñal jibril mu ne sa sago malakal moo ti rok reculer Moustapha tëdd ñuy xaar Jibril bi onze heures moins quart waree jot takk diral góor gi dafa soppeeku tane woon daanaka ca fajar ja tane woon na ba julli si ci jàkk ji te malgré manqué na absenté na dix-sept prières dix-sept prières yu ne ñëwul ci jàkk ji ci mbooloo mi di jullee néegam mais fajar jooju ba lay wax tane na ba ñëw ci jàkk ji ba sa xeli saa ba yëpp a dal ñu ne góor gi tane na tane na bu duggaat nekk ay situ commencé soppeku dog commencé soppeku commencé soppeku Fatimatu benn doom la des ci kaw suuf nabi bi muy nelaw benn doom la des ci kaw suuf muy Fatimatu bintu Rasul kuñ ko tuddee Malick Fatimatu bintu Rasul ku ko bàyyam tudde mm, xam nga kuy turandoo Fatimatu asidin bàyyi yaayi Seydina Aliyin ah, yaayi Seydina Aliyin di tant ci yonent bi yaral ko boppam ndax Aboo Taalib mi jur Aliyin jur Jaafar tawloo Taalib moo am ñetti àddina yi këf ko góor googu Thierno Oumou Hani yar Moustapha bi ne bi amee huit ans ba mu am quarante neuf ans vingt et un euh, euh, vingt et un huit mois vingt et un jours la si daal ji maa wax góor soxna soosu door a nelaw keroog ba mu nelawee ne bee jiit ca bàmmeel ba daf na gas leen te xaar ñu gas bàmmeel ba ba mu sotti ne bi ñëw wàcce boobu duggee ci biir bàmmeel bi tëdd mel ni mooy niw bi ne ceel ba mu yàgg mu ne xoñeet jóg summi la mu soloon lal ki ci biir bàmmeel bi ba mu yàgg mu ñori këf ka ne dugal leen soxna si jërëjëf ñu dugal soxna si suul ko booba julee niiw xewagul booba julee niiw xewagul julee niiw a nga xewe medinatul munawwara sanga niiw a nga xewe medinatul munawwara soo bëggee ma wax la kan la ñu jëkk sang ci niiw ci àddina ci lislaam jar na ko wala jaru ko ah, Seynabu bintu bintu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seynaba doomu yonente bi mooy niiw bi ñu jëkk a sang ci lislaam ci medinatul munawwara maa ngi dem de ba booba sang niw xewagul ñu ne Moustapha lu tax nga def li nga def tëdd ci bàmmeel bi non seulement tëdd mais nga summi séeré lalal ko ci bàmmeel bi mu ne soxna si xàmmeewu ma ko ak ndey ji ma jur li mu daj ci man sama dee daju ko ci maa ngi dugg ci loxoom bi may juróom-ñetti at ba yàlla yónni ma masumaa xiif masumaa mar masumaa tilim dugg naa ci bàmmeel bi nag ba ñaari couche yi bàmmeel yëg ne xam a fi ne ba may rocc ku yëguñu ma kenn du dara si fekki sa morom jigéen ji du am tàppuk bàmmeel lalal naa ko sama yére pour ñu teere ko ci ak ajjine kon suul leen fàttumatu boobu ne teg ci ne ku bindal turam ci bàmmeelu ku ñu suul kenn du mbugal borom bàmmeel ba fatimatu bintu asadin fatimatu bintu asadin xam nga sëriñ bi aliyin ay dara du sant Aydara déedéet du sant de dama laaj lu mu tur la Alioune Aydara la soxna si ma lay wax xam nga gaynde am na téeméeri tur ak ñaar fukk waaw te wakkatul asmaa yi toddulu ala asrafil musamma bari tur luñ la tudde day teg tele baaxu borom tur yooyu soxna si yaay ma ngi tudd Asedin bàyyi Asedin Asedin mooy firi gaynde Asedin mooy firi gaynde Aydara mooy gaynde bi mooy juddu Alioune doo fekk bàyyi voyage bu juddu gannaaw baayam soxna si ngénte ko tuddee ko papa moom papa soxna si tuddee ko papa bu asedi góor gi ñibbi si mu nekk am naa doom sa gannaaw góor la ngénte nañu ko utal naa ko tur kooku tuddee mu ne sama papa góor gi naka non d'accord ma ci tur bi man jigéen di tudde sama doom waxuma ngay tudde sa baay man Alioune lay tudde ñu boole Alioune ja ak Aydara Aydara mooy gaynde gaynde mooy Asedine soxna si nag moo tudde Fatimatu bintu Asedine ma dem moom la jotoon Fatima di rasul bi baay bi tolloo ci waajtaay dafa woolu Fatima te ne bi lu mettee ka dal dal nañu mag ñu bari moo di sa biir njaboot am tuuti lënt loo mënta rek la te dina dal ñaare boo nekkee danga mage am soxna su ndaw mu maasee ak say doom yo ca kër ga sa doom yooya ak sa soxna soosa du ñu juboo parce que seen ndeyee tax malgré Fatimatu fekk dafay Xadijatu waaye am nay wax wax am nay wax wax am nay wax wax ba Fat ah, ah, ah, Fatimatu jot ca meral ndey ja contre Aïcha waaye yëpp amul solo keroog daal bi ne bi toll ci waajtaay te ne neeg Aïchatu daf ne ool leen ma Fatimatu ñoo ko Fatimatu doom bu tedd boobu mu ñëw dëju baay bi ne ko doom dama bëgg a wax ak yow yàlla wax na ma ne tey si ma dernier jour àddina barsax lay fanaan tey doom mooy sama dernier jour àddina di sama premier jour àllaaxira yàlla nag baaxee na ma mboolem ku ma jaboot yaa may jëkk a fekk si moo tax téere yi ne ndebi euh, dafa oo Aysatu fàttimatu mu sëgg muy wax ak moom soxla ba jeexul mu siggi mu nekk doom ma ne mu sëgga ne bi ne nga naan mu ne ñammet siggi mu ne doom mu sa Gaat lu tax may wax ak yow sama soxla jeexul ngay siggi bokkul ci yar bokkul ci teggin te nabi yàllaa ka yar mu yar waxul loolu adaba di rabbi fa un seen taadi bi am na adaba di rabbi fa addibtu am na yàllaa ma yar ma yaru wala boog yàllaa ma yar te rafetal na yar yi doom lu xew mu ne papa su ma sëggee lu mel ne takkandeeri may tiim su ma jigee du ma gis dara mu ne ko doxal sama jógal sama diggante buntu bi ma xoolal la Fatimatu Dagaase sanga bi bëgg a jóg amatul doole doole jeex na ndeysaan mu ne ko doom may ma loxo Fatimatu wéri ci gannaaw bàyyi bu tedd boobu foofu loxoom yu tedd roof ko ci poqataane bàyyam boobu dëj ko na njool maa ko yurdu xool daal di rëy ko wax nga dëgg malakal mawti laa ko moo lay tiital malakal mawti la wéeru ba dëgër ne ko bismillah malakal mawti rey ak doole jàk kattan gaak ne bi ne ko li saa irin jeetaaw li xabidi looy def ban mission ngaaw da nga siyaar si ou da nga baree si kuy malaayik yor responsabilité ñaan yàlla permis ñëw siyaar ma sama néeg bii attaqueur caabi aljana ñëw na siyaar ma yaa fi ma solo ñëw da nga ñëw pour def li yi doon def mooy siyaara wala da nga ñëw pour def si liggéey te mooy rey mun na ñëw naa pour ñaar yëpp ñëw naa pour tous les deux ñëw naa pour siyaar ñëw naa pour yóbbul yaay choisir nag soo bëggee dem tey dem tey soo bëggula dem tey ba mille ans nga des fi mu dekk ko ana Jibril sama soppi bi anam ne ko maa ñaar malaaka yi ponk wër di ko jaal toro gu tedd gi dëree yéeg tey ndax loo am gisee sa borom mu ne ko mooy ndax mën ngaa muñal Jibril mu ne sa sago malaakal moo te plomé taxaw ay surtout ne nabi ki nga doon waxe léegi day dégg naa kàddu gi du Jibril de du baat bi ma miin a dégg la nabi ne ko mu ne ko gisu waaye dégg naa kàddu mu ne ko malaakal moo ti la quelques secondes ponkal me day àllu jibril bu ngeen juróomi téeméeri laaf ci ndeyjoor juróomi téeméeri laaf ci càmmoñ takk laaf yëpp di niroog jigéen juy tënji kanam ko sufuñe mu xawee ko aras cëppelu ci kanam yonent bi yéen ne ko ma bégal mu nekk li ma tax a ba ca aras ñu ko li am bi boobu du ñu di ko samp ndi ngi teeru sorogu tedd yi dana yëg taas yi ban mu ne bégal ma jibrailu mu ne safara kenn liggéeyul tey dañu ko tëj jëpp jël nañu repos kenn deful dara ngir tere toro bu tedd bi mu ne Jibril bégal ma mu ne Algérie nañ renforcer personnel ba tey ñu ngay batte mos tilibul sax waaye ñu ngay nettoyé ñu ngay fomp ñu ngay taal cuuraay ñu ngay lal tappe nga teeru sa roogu tedd gii ne bi ne Jibril bégal ma bégal ma waxuma sama bopp waxuma fatimatu asan ak waseenu waxuma leen sama xeet bi ummati ummati ummati xeet bi laa bëgg a xam nu yàlla defanteeg ñoom jibril naka may ma may ma ma delluwaat ci borom bi de gëy ne mé ci asamaan quelques secondes ne dereet ne pàcc mbuuñ ne bi naka lu xew mu naka sa borom ne na sama xel dal wala saw fa yu'tika rabbuka ba nga a fatar da sa borom ne bu àllaaxiraa dañuy ubbi bunte dañu ubbi juróom-ñetti bunti àjjana yëpp wax naa la ko biig àjjana huit porte safara set ñoo yemoon nag yàlla ne su ñemee sama yërma du feeñ naa yokk àjjana benn bunt bàyyi safara ci set yóbbu àjjana huit ma ne garanti bi moo di képp koo xam ne ci xeet bi nga bokk guddig tey sa jëf dinañu ko rendre Moustapha Konté tey mu recevoir sa jëf ma ne ku recevoir sa jëf recevoir na la waaw xam nga nun da nekk ci xatar mooy danse nun ñuy dundate deeyaguñu ak jamono bi ñu dunda di mu yàqoo yéeg nga ne Abdou Aziz ku tongu sa mbokkum jullit benn heure benn benn heure yàlla delloo la loo julli woon ak loo saraxi woon loo ooroon loo ñaanoon yaa ngi boo gisee al axdar yi Abdourahman di wax naan jaaduwul nga tonk sa mbokkub jullit salasata ayaamin ñetti fan xam nga lu tax dafa dem ci axsal mudda fa dat ba yem la yem dafa dem fu mu limité ñettey boo ko passé dem safara waaw li tax mu wax la ñettey mooy kuré yi kuré yi dem li ma wax léegi kuré yi jóge ci suuf di jaar ci yonteelu Muhammad di dem ci borom bi tabaraka wa taala alxemes la am soir ak dimanche soir comme tey day jaar ci nabi maytul munawwara sallallahu alayhi wa sallam xam nga nabi hayyan fi xabrihi samiun basirun mu ngay dund ca bàmmeelam ba mu ngay yëg ca bàmmeelam ba di def ay tasrifaat ca biir bàmmeelam ba di dem di dellu si mu nabi bokk du yow mu la boo nuyoo yonent bi te du guddik aljuma ak guddik altine am na malayka yu fa taxaw di ko dellool nuyoo Abdou Aziz Mbaye doomi diw ak diw te Sénégal nuyu na la mu ne delloo leen ma ko nuyoo ah. malaaka yi la Abdou Aziz yonente bi ne dafay ne la dégg na delloo la nuyoo mais loolu mooy talaata ak àllarba ak altine waaye bu dee alxemes wala ajjuma nebi direct moo lay fay nuyoo aleyka salaam Abdou ma dem ñu ne da nga xuloog sa mbokk lundi mardi mercredi jeudi am na courrier jubóol parce que dossier yi jaar ci Moustapha bu dossier bi ak accès daf koy xool diw doomi diw réew sàngam dëkk sàngam nekk lañ lañ lañ lañ lañ fekk fa ca lu baax mu santal la dossier ba dem bu fekkee sa safaan mu baal la yàlla ba yàlla baal la dossier ba door a dem mais bu fekkee da ngay tonkoog jullit ni yow bu carnet ba accès du ko xool sax parce que dañuy bind ca kaw aaluwaay ah, mu falax ko mu jàll te ne bi kum baalul sa affaire nga yàqule ma ne Alaaji Mansour Mbaye nu ngi ci mbartal xam nga mbartal xam ngeen mbartal Abdoulaye si xam nga mbartal mooy montagne descendre descente bu ratax lool ba ndang nga sol daal yu ratax lool ba ndang ponkal mu la ëpp doole doxale gannaaw ba max la foo jëm bu la yàlla téewul Malick jërëjëf yaay booy ma bàyyi li ma doon bëgg a ba dama bëggoon a ne góor gi saraxe leen waaye naa ko bàyyi ah, jigéen yi ah, jigéen ñi nga ne ñëwaguñu bu baax daanañu gën a ñëw ah yow man sori ak wax man sëriñ bi dama ne nu ngi ci danse décentre boo xam ne dafa ratax ba nang waa ah, kañ soxna yaa ngi ñëw ñoom du ñu yàqub xare jërë ngeen jëf nga sol daal yu ratax ba nang ci descente boobu ma ne ku la doxee gannaaw ëpp la doole ba mbax la foo jëm ñu si taxee aj Mansour xam nga sunu nattu Sénégal mooy lan sunu nattu ne sax waxoon na afaatu ummati nattu xeet yi waxoon nag ko yonent bi doon sama nattu xeet ñetti yëf lay doon xam nga ban ak ban ku xamul diina ñu topp ngir diina jërëjëf yaay booy jërë ngeen jëf yaay ñu jiital la ndax diina na na lu yàqu ci xeet yi kooko ko moo wax bi ci topp yu si taxee na képp xam nga bu ca topp ak boroom xam bu jubadi eh, jàng ba jeexal teeraat teg sa tànk ci ndënkate ne bi la kooku la réeréer ak lan ak ju bëgg a daraja ak jaahil yu bëgg a daraja te am wërsëg jaahil yu bëgg a daraja te am wërsëg nabi ne moytu leen ndax borom wërsëg du wéet ci la muy def day am ñu ko ca fekk te fekk ci erreur la nekk waaye ma ne catu Sénégal boog lay bëgg a wax sëriñ bi sëñ Abib catal Sénégal xam ngeen mooy lan mooy politique politique mooy sunu cat nu ngi koy dëgmal su la yàlla defalul sutura man na fee yàqu bokk man na tas ak xarit man na fee fecci wëllëre moom politique moom bu daana ko def yal na ci yàlla musal Sidaaji Malick ne nga baal ma ci nga yàlla laam gi am nga rëbbum yàlla taltombe ba nga yàlla deel gi kéefër la xas ku la gën sóoru ku la man wax lu nekkul ci yow digir bu bari joxe ca tuuti sos luut yeggale tas ak bokk tas yaakaar ñaaw njor bëgg a kawe say morom boo faroo fàtte leen baal bi joon na may sawaal yi joon na la sant Malick sa mbokk la ci seen jaay la ah? sëriñ bi ak bokk ku ko dog ngir sa bakken safara nga jëm wax naa ko bërki biig rek maa ngi koy waxaat te joxe rajo bi te firi way wi joxe rajo bi ma ne fan wu gudd alaaji Mansour fan wu gudd alaaji Modou Gueye président Ahmadie ana si Adja Séné ba ana Adja Séné bu loo maa ngi koy nuyu nuyu Ahmadie yëpp Mansour Mansour Mansour Mansour Pouy jërë ngeen jëf yaay a ngeen jëf yaay jërë ngeen jëf yaay yal na yàlla wuutal lu gën li ngeen joxe yal na yàlla wuutal li ngeen joxe gën li ngeen joxe jërë jëf jërë ngeen jëf sëriñ bi fan wu gudd loxol borom a nga ca am na luy tax a gudd fan am na luy tax a gàtt fan te lay tax a fan bokk na ci bañ a fecc wëllëre bokk na ci bañ a dogug bokk bokk na ci bañ a tas yaakaar bokk na ci bañ a fen yii day tax a gudd fan bil xaq si nag safaan bi day tax gàtt fan si day tax a gàtt mooy safaan bi bil xaq mooy safaanu li ma wax day tax a gàtt fan ma ne maa ngi wax Malick benn xisa daayira Alaaji Mansour waa jërë ngeen jëf yaa yéen a baax yéen a baax jër ngeen jëf jërë jëf yéen a baax jërë ngeen jëf yéen a baax jërë ngeen jëf yéen a baax jërë ngeen jëf yéen a baax dafa am ku ñoo xam naa ne xaraasaan waxuma la ko barki bi xam naa ne xaraasaan nit ku ñuul la woon dëkk fu ñu wax yamal bari xam-xam mën a jaamu yàlla jërë ngeen jëf fii nag neexul a firee ndax yii ñëwoo tax ah baax ci sëriñ bi Abdoulaye Nar Xarasaan der baa ñuul waaye mu bari xam-xam lool nangoo jaamu yàlla lool ba toxu def mu jaawara taxu fa mu dëkkoon ñëw dëkk si màkkatal mu karam dëkk màkk di jaamu yàlla bay naar yi xool ko ne keenu gën a mën a jaamu yàlla nattu ko ci xam-xam mu raw leen ñu def ko ilémaanu kaaba gi jiite ne kaaba gi fukki at juróom-ñaar 17 ans dafa dë def leen nii def leen nii bu toog ci yoon bi buusal buusal ñii sarax fii la ñuy jaar ñoom ñu toog ci yoon yooyu jërë jërë ngeen jëf borom jàllaat jógal ci yoon bi. jaamu baax a fay. baax alaaji baax nag yàlla yërëm yàlla na dee nekk noflaayam jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yal yàlla wuutal lugal li ngeen joxe jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. jërëjëf. ga àggal suuf jonk na jonk na. jërë ngeen jëf yal yàlla wutal lu gën li ngeen joxe jërë ngeen jëf amal lañ sëriñ bi ñu def ko imaamu kaaba gi ngir xam-xam def ko al aminu ngir jub gis nga Mansour baat bi ñu wax al amin ñu ngi koy dàkkanteel sëñ Abdul Aziz al amin xam nga lu muy firi al amin mooy góorgóorlu seen secret te doo yàq dénkaane alal alal du yàqoo ci loxo secret du senn ci gémmiñ kookoy al amin moo tax makkatal mukarama xëy na yonente bi yaa Muhammadu la bi góor googu dañu def ko amin muy trésor lu waa ji dénkaane sëriñ moom nga koy dénk mu ne ci loola fukki at juróom-ñaar xëy nag benn waay dénk alal ju bari dee tukki góor gi dee gannaaw mu ñibbi si ñu ne ko góor gi day faatu na mu ne kon sama alal yàqu na sama capital moom laa ko dénkoon ñii ne junni dinaar ñii ne junni li bi door xajal ko moom daal toog ci géew bu ñuy tagg yonent bi ah, nga toog di xoole te yor loo mën a joxe di xoole ba ba ñu tas neneen ñibbi te sa dara desu fa ku la gën a perte xaw ma bu maa ngi de waa jooju ka ka dénkoon koppari ci gàttal jibbi si ñu ne ko góor gi dee na waaye góor gi kat daraam réerul demal seeti njaboot gi ci gàttal mu dem seeti njaboot gi waxtaan ak ñoom ñu ne ko bàyyi day luñ ko mës a dénk fii la ko bind ci carnet bi denc ko ci coffre-fort bi ñu ubbi coffre-fort bi xool ba mu jeex turam nekku ci ñu seet carnet bi ba mu jeex turam nekku ci ñu nekk fii leen xamoon fu bàyyi di denc te sa nekku fi mu ne naa seeti ku ma tane seeti benn boroom xam-xam nettali ko mbir ba mu teer mu ne ko xam nga lu xew mu ne mu ne ko góor gaa nga aljana góor ni ngay def nag ba wax ak moom da ngay dem sam-sam dem fa guddik ajjuba une heure du ku dem aljana ku mu doon soo ruuxu sam-sam lay faral dem fa julli ñaar rakk maa xam Ibrahima demal Safa ak Marwa dellu si kaaba gi sukkal ca bunta teen ba woo dina la wuyu boo ko waaja déplacé wu dem kaaba nga guddi ak juma def tegtal ya sugga ca sam-sam di ko woo am na ñu ne am na fa salaasalaay bi ñetti fan kenn uyu ko awena seen ndaw woote Abdallah Abdallah kenn uyuwul mu dellu ca góor ga ko ko digaloon tegtal ya wax résultat yi mu nekk kon góor gaa nga safara mu nekk kooku mënta dem safara bu demee safara ñëpp dem safara xam-xam bi mu ragal yàlla mën a jaamu yàlla gi jiite gi fukki at ak juróom-ñaar day mënta nekk mu nekk li ma la wax du day xam nga nooy def demal yaman benn xuraga bu ñu baax muut ñu ne baax muus taa tombe booba daf ca am ñu ca teg beneen tomb muy Bahmouz Abdou Aziz ñetti tomb ak tàtànk ju tooy ak deet ju tooy ak raseyin ak sinara ak sin soo neexu ñoo xam ne sama xar ju doo fekk leen di séparé di séparé moo tax mag ñi ku ci mas a jàng bi àggal dem Tiwaawan seeti si Daaj Malik mu defaral la sa làmmiñ defar sa maxas juróom nga door a nga nga door a mën a dem eh góor gaa nga safara man te nekk mu dem safara mu ne ah kañ demal yaman xur mu ñuy wax baax muut dem fa guddik samedi bii yoon boo demee une heure du matin sukkal ca bunta pax ma julli ñaar rakk woo ko ku dem safara ku ne sa ruu foofa lay fanaan dem fa waji de place dem yaman samedi soir une heure du matin ca kéma ju teen ba pax nga woote rek góor gu wuyu uyuka taata darbin sadidin ay karawaasan kay dal yu ko defoon dund xale ba yuuxu ay papa lu leen di fii ana sa jaamu yàlla ga ana sa diine ja ana sa jub ga ana sa xam-xam da teer fii papa tey mu nekk xam naa li fi indi mooy sa alal ja su ma la waxee fa mu dee wax la li ma indi fii dugal sama kër ñii ne def ko de sa waccoog ndey joor loxo ndey joor ba wàññee ñetti jéego ba ka ñeenteel gasal falaa ko suul dara jugu ci ñii ne déedéet daf ko ne manqué ci benn àndaar takk ci morso bu soon mu ko ca soofa suuf rondal boo demee tekki ko mu nga fa dara manqué wu ca boo wax la ne li ma indi fii mooy boo jotee koppar yeeg demal suru dëkk laajtal Fatou Bati bi du xarasaan nu ngi bokk sur juróom-ñaari maam ka ka jur ka ma jur ka jur kooku ba juróom-ñaari maam ci moom juróom-ñaari maam ci man fa la nu korosé bokk ba ma taxoo xarasaan new màkkatal mu karama ba ni ma dee topp wu ma dara dimbaliwu ba ko seetu ma ko xawma xiif na xaw ma mar na xaw ma ñàkk na xaw ma am na nee na googu ma nee na mbokk ci la ma yàlla jéppee ba delloo ma lu ma ko jaamu woon toppatoo leen bokk bi politique jarul teraanga yi kenn jarul nga dem safara yow te borom teraanga ji bu ca jotee réer la yow dootoo ko gis mane ku ne na am ku ne na far fa ka neex xob la soxla ku ne jox ko sa xob ka nga bëgg mais téel sa làmmiñ nag jarul xas sa mbokk jarul dog sa mbokk jarul wax luñ lay yedde jarul dox luy tax ëllëg yàlla taxaw la ci kanamam di la yedd dara jaru ko moo tax du yoonu sëriñ du yoonu it ni gor loo wax ma dem mbaa du wetti ku xam lu ko jar yaa saaxibul politique mm-hmm. bul topp ay waxam seytaane moo ko tëral muy fiir gu bu soxar mm-hmm. moo tax du yoonu sëriñ du yoonu it ku di gor loo mu dem baa na weddi ku xam lu ko jar seytaane tëb na tàllal përëg muy na ku la tër ñaccaar bu dee daanu di kamba di paxa di xur maa baa du gumba ya asentum yu baax yor jërëjëf ma ne sëriñ bi yonente bi ne man araada malik man araada an yamuuta bi makkatal mukarama aw bi madinatul munawara fal yamut ana usafihu nabi na ku mu neex nga dee mag alaaji Medina Mbuub alaaji Medina Mbuub sëriñ bi duma ci wax dara ci kii ku baax ngi ku effacé ngi nii ku noppi te bari njariñ a ngi nii Medina Mbuub bi leen yal la yàlla baax daraja yonente bi wax xam lépp wax lépp baaxul lu ma doon wax. ay ah, yaa nga ci ma dudd a. Ah, ah, dama bëgg ndax waaw kay sëriñ bi gàggante na ma parce que léeg-léeg ma laaj lu ma fàttewul léeg-léeg ma laaj te lu ma fàttewul dama bëgg xam ndax public bi ñu ngi siwar wala siwaruñu Mansour nabi ne ku bëgg a dee Màkka dee fi ku bëgg a dee Medinatu Munawara dee fi ku fi dee maa lay ram téere yi ne ñu bés penc dañuy taxañ suufu Màkka ak suufu Medina ni kuy taxaj basan lem ka ba mu lemu mu naa malaaka yi naa wax moom tim aljana yëlëb ko doo jaar siraat doo jaar bés penc doo jaar peese doo jaar fitna doo jaar coono aljana nga woo waaye terewul ma ne nit ba gën a dëkkam fu mu dëkk dëkkil woo xam ne kuy wàccinu dem màkk di nga rey xar togg añ jàngalu kaamil ñu ñaanal pour nga ñibbisiwaat wala déet Mansour waaw ma ne avantage bële ca màkk ak mun a Munawara nga ne naa deeyoo wakaam te moo ma gënal dee ca yonente bi mu ràmm kon ma kon bëgg nga wakaam kon wakaam intéressé na la may la wax nag ne attention yaa ngi wakaam doo fi mujjee dee rek doo fi mujjee yow doo mujjee dee doo mujjee xaw ma kañ ngay dee waaye dina am ñu la taxaw ñu doo ko wakaam ñoo lay sang ñoo lay sang ñoo lay yenu ñoo lay ba ca bàmmeel ba ñoo lay doggali xamagoo kan la ci ñi nga dëkkal kon jàmboo lëg ñëpp léeg-léeg niiw dee yóbbaale gàcce ngir ku mu defoon ne noonam la def ko noon kooku mu jëkk a doggali nan defar bokk yi gis nga Alaaji Mansour Mbaye mii ku mu bokkal géño mbaa meen moo yor sa dépense ku mu bokkal géño wala meen sa dépense su kër ak sa soxlay njaboot moo ko gàddu noonu la nit di dimbalee bokkam dem yaa leen tane noonu la nit di dimbalee bokkam dem yaa leen tax wala déet maa ngi yemale foofu sëriñ bi dina li ci des Siraaji Malik ne tuubaanu def na wan ku ñuy wan ak lu ñuy wane jéggil fayil ji de dama ca ma bool ma loxoo ñool mel makka lu ñu koy wan ambaana suñuy jëf tuubaanu def na wan loxoo ñeel njool makk eh, maalu naa suñuy jëf kañ la si ah. mu ne yowmal xamiisi jeudi soir ba seddi vendredi bangal sa baaram tuubaa lu def na wan loxoo ñeel njool mag eh, maalu naa sunuy jëf kañ la si mu ne yowmal isnayni dimanche soir ba seddi lundi wax naa la ñaar tuubaa lu def na wan naa su koy jëf loo ñeel njool màkk fi istighfaar si juróomi ngir mu baalul borom bàkkaar yu garaaw yi yàlla bàlleen nu góorgóorlu dunda yàggul te mën mën a ko gën a yàggat yi bi ngay laata man am nga fi biir sa man man mënoo lépp bi nga mënee mënoo lépp xamoo bi nga mënee lépp nga mën mënoo lépp kër gi si sa kër moomoo ko booy jaay baat ak doole ba dawal oto bu rafet léegi am ku la dab te moom moo oto ba d'accord ne bi nga mënee mënoo lépp bi nga xamee xamoo lépp fi nga demula ëpp fi nga dem li nga amula ëpp li nga am li nga gisula ëpp li nga gis kon tuuti nga xam tuuti nga am tuuti nga man tuuti nga dund man ne sa tuuti tuuti yu bari yooyu nag boo ci foxee rek perte ba xeetul umri la si la xase mënul arab la wax arab nee na ndesitu dund amul prix ba xeetul umri la si la xase mënul boo ko fooyee xamoo ñaataa ci des ci nga war a defaree li nga yàqoon ci nga war a par préparer li ñëw ëllëg kon nit mag si daa ji Malick ne mag bu jógee génn këram ñaari fekk war tax mu génn yiwu mu yóbbu bàmmeel ak dërëm mu jox njabootam waaye xëy taxawaa lu soow rek lu sooyoon na nga necc lu sooyoon newul nga necc gor gu ne nga xas ko ku ne nga ñori deram ku ne nga ñaawal ku ne nga wax ko lu bon ma ne day tax booy dee doo wax sa soxla boo dee safara nga jëm yal na ci yàlla musal Chérif a ngi fi waaye jonn mii di wóllëre di mbokk di xarit moom it xaw a nekk ci jafe-jafe yaramam xaw a sutaate kon Abdoul Aziz am nga loo daan def sëriñ bi ne nga def ko bu ko defee ñu jéem a dajale dara mu bañ a ànd ak bur ñu euh, wala nga ut koo yebal. wala nga ko def. wala nga wax. waaw waaw sëriñ bi. sëñ Habib. maa ngi taxaw fii. tey wax ne tey wax ne mag ñi ñu tudd tudd xew-xew bii jamono ba ñuy dund du ñoom rekk ay mag ma ne mag ñii ma mag ñi ñu tudd xew-xew bii ak mag ñu baax ci fi nekk lool ba ñuy dund am na yeneen mag yu bokkoon na ñoom jamono ana mag ñooña ana dammeel ya ana teeñ ya ana buur siin ya ana buur saalum ya daan def di dindi di tere di yeew di dóor ana ñu tey kenn tudd tulleen xam nga lu am sol Abdou Aziz ànd ak ku baax ku ànd ak ku baax yàlla baaxe la te ku yàlla baaxul te baaxe la soxla war a sedd Abdou Aziz nga yooyu ñaan alaaj Mansour ku yàlla baaxalul te baaxe la doo sant mbaax yaatuwul ñëpp xeju ci xamu waaye ku mu baaxalul te baaxe la si xel dal xam nga luy loolu wala baaxul te boole laa ku baax kon baaxee na la du dëgg yal na nu yàlla baaxee maa ngi delluwaat di wax ne sëriñ baax ngi leen di nuyu yaram waa xaw su tàtte sëñ Habib dina confirmer lii ma leen wax waaye xelam a ngi fi xolam a ngi fi feeñ na nag ndax doomam a ngi nii toog nar a jël kaddu gi wax ci tur woyu waxaale ci turufal bi yépp nag yal na yàlla yokk sutura bi yal na yàlla yokk kattan bi yal na yàlla yokk mën-mën bi ma moor maa ngi yow fii di wax rek ne yal na fekk déwén amiin amiin fekk déwén baax na waaye na ànd wér amiin na jàmm amiin na sutura ndax nag jaamu yàlla bu mu nangu abdou aziz benn subhanallah ku ko yàlla nangu rek nga defaru benn subhanallah benn subhanallah benn laa ilaha illallah benn ayatul quran benn rukkon wala benn sujoot ku ko yàlla nangul sa lépp defaru abdou aziz julli farata ak sunna yi lu ci ëpp doole ah laaj nañ la ko man xaw ma ko kat. mara bu dañu bëgg soo kàbbaree xam nga faatiha rek kay farata li jàng yëpp faatiha doo nga ciy farata saar wi sunna la te premier aaya bi rek kay sunna premier aaya dong mooy sunna la ca dootu sunna maam baal ma da nga wax léegi waaw Abdou ma xam waaw xale yi ni ma ni ma nangam ma ne ko dee waaw góor gi dama ni hmm. ndax nangam xam nga dañuy laaj ndax booy julli Abdou Aziz. Ah. yàggal taxawaay bi ak yàggal sujjóot bi lu ci gën. Ah yàggal taxawaay bi ak yàggal sujjóot bi lu ci gën ñu ne ñu ne ah. taxawaay bi sunna la bu Fatiha jeexee te rukoo bi. ak sujjóot bi farata la au lieu nga yàgg ci taxawaay yàggal ci sujjóot bi ma ne faatiha mooy farata ci li ngay jàng tout saar yu sunna la te première ay rekkee sunna la cee tututul sunna nga ne lay doon ah. waaw moo tax ñu bëgg nag booy julli rokool ba sax ba sax ba sax ba ñëpp xam ne sax nga nga siggi ba taxaw tam ba ku la seen xam ne taxaw nga nga dooroon dem suuf dëpp fa jën ak dëpp ko fo dëpp ko fa ba ñëpp xam ne su joot nga nga door a sikki dëju ab diir door a su farata yooyu ak sunna yooyu dafa mat a xàmmee te ràññee leen te jëfe ko yàlla na yàlla soxna wala am sutura te yokk sunu kàttan ak mujj daje yaa sëñ bi moo yor ñaan gi ah amiin ko àggali bu soobee yàlla barakallahu fii wa kullu amin wa antum bil xayri tabarakallah salaam jëf loolu waa wax ci waaw